Euh, soxna maam Xadim Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkoon ci ñun ndax ñun dañoo aadawoo ci fii ñu nekk ci environnement bii ñu wër saa yu njabootu sëriñ bi ñëwee suñuy dara ji ñu sippi ko jiital ko tekk ci suñ kanam yàlla dogal bi mu ñëwee donte ni membre la woon ab actionnaire la woon ci ñun directeur général bi sëñ Baara ma nga fa woon euh, PCA bi mi ngi fi amul woon benn place pour pour pour jiite loolu. ñu tàmbali bi ñu ñëwee ak Sonacos it moom ci jëmmi boppam mu proposé ne dafa ñu proposé. mooy signé contrat bi. contrat bu toll noonu ak njariñ lu am looloo xam ne 12000 employés am nañ ko suñ ginnaaw mu nekk ci ginnaaw nit ñoo xam ne xëy na mën nañ ciy liggéey ci biir nawet bi plus de 12000 employés yoo xam ne ñi ngi waroon a dem ci àll bi bayi te mën nañ ciy gis seen bopp ñeneen bayali leen ñu mën ko téye seen bopp loolu duñ ko xañ duñ ko xañ mboolem suñu employés yi ci lañ ko defal délégation de pouvoir ci le 8 8 juin boo xam ne sëñ Baara Mbacke mi moo ko defal entre Sonacos ak ñu liggéey looloot mi ngi nekkoon contrat boo xam ne 30 000 la woon yàlla dogal nag bi loolu amee euh, fekk dox nañ ab diir ñu xam ne lii kat comme que gerte yi bu ñu ko xoolee bari na ci ñoo xam ne yenn filière gerte dañ ci am jafe-jafe ci la mboolem ensemble bu rasiyaat toog daje waxtaan bind benn lettre boo xam ne si jafe-jafe yi ñu ci am entre Sonacos te lañ signé woon ca contrat ba wóote na ak lii ñu ci teewaayu maam xari moom xam ne moom lañ joxaloon suñu digganteeg moom directeur général teew mboolem chef de groupement yëpp ñëw toog ñu bind loola wax maam xari ne ko kat lii dañoo bëgg ñu jox ko Pape Pape Dieng directeur général bu Sonacos ngir rasiyaat toog ak Sonacos xew-xew yi wuute yi am ci biir gerte gi ñu toog ñu waxtaan ci looloon ñu wax ko ne ko dañoo bëgg ba ko balaa la 25 août dañoo bëgg ñun ñu dajee toog bu leen 5 août jotee nag mooy toog nañ danañ ko ne ba le 27 bu bu jotee dañuy bëgg ñun ñu toog maanaam nag bu fekkee ne àgg na te waxtaan dañuy bëgg ñu taxaw taxaw maanaam ñu taxaw déglu leen ba ba ñu am négociation ñu doon continuer waat doxaat loolu bi ko waxee Eh, ki nga xam ne moom lañ jiite loolu moom lañ defoon eh, délégation de pouvoir mooy soxna maam xarit d'accord na ci loolu ànd ceeg ñun mboolem chef de groupe yi nga xam ne ñoo yoree liggéey bet signé ko mu dem yóbbu ko bi loolu amee na bi ñu àgg ci la 25. yëg nañ ne eh, yu bari yoo xam ne jaaraat na fi ci ginnaaw bi mooy benn compte boo xam ne ubbi nañ ko ci le 29 juin ba le 20 ñun la ñu yëg ne compte boobu ubbi nañ bi ñu ko yëgee daal di bloqué compte boobu continué waat liggéey continué liggéey ak ak ñoom bi ñëwee ba le solution le 27 jox ñu benn en zéro mooy dajale leen li fi nekk ci gerte ak ràkkal ngeen jox ñu ko ñu fay leen li ci nekk waaw Sonacos ba tey Sonacos ba tey depuis booba ak léegi ñun ñi ngi koy envoyé ay maanaam ñi ngi soxla woo daje ak moom mais dañoo munta am toog ak moom pour ñu wax solution rek parce que ñun amuñu beneen liggéey bu dul lii la ñu waxoon président de république mooy 4 millions moo nekk ci suñu ginnaaw waaye ñu am nañ 12000 emplois wala 20000 emplois yoo xam ne ngi toog te ñoom ñëpp dañoo bàyyi seen yitte bàyyi seen i bàyyi lañ doon def ci seen dëkk àll ñëw ngir teraanga jooju ñu mën cee tedd kenn ku ci ne mën a téye sa bopp kenn ku ci ne mën a téye sa bopp ba doo dem doo nekk semeur doo nekk ci leneen loolee nag dañoo gënal lu bari xëy na bu fekkee ne maanaam ñi nga xam ne ñooy chef unité mooy jur 88 unité yi ne ñoom ñoo nekk toog chef d'entreprise ba mën naa toog 3 mois mais bu ñu demee ba ci début de campagne bi dana liggéey lañ daan liggéey moo bëriwul parce que 2 mois wala 3 mois lañ daan liggéey ne 3000 nga koy fay wala 4000 yi nga koy fay wala muy technicien nga di ko fay 5000 francs loola la yaakaaroon yóbbu ko këram boo ko ko xañee fi dana metti te loola lu muy lu war a mën a nekk muy lu war a mën a continuer wax ne délégation de pouvoir bi ñu defaloon soxna si ñun bi ñu demee ba nga xam ne am nañ jafe-jafe te amuñu solution suñu diggante ak moom te délégation de pouvoir la boo xam ne dañu ko def entre a ak Rasiaat dañoo bëgg Sonacos buy ñun suñu directeur ñun bi mooy liggéey soxna si moom dong compté pour liggéey instructeur bi tënk 88 membres yooyu xam ne 12000 employés moom lim ci am wala ñene ñaari nit wala ñett ni ñam àndal amuñu ci lu àgg 30 personnes la ca des ña yor ñooñu ñoo am majorité pour ànd ak liggéey ak Sonacos Sonacos duñ ko présenté suñu bopp naan ko ñu ngi nii parce que amee ko dara liggéey nañu moom ba ñëpp ñu ngi am mise en zéro lañ nekk ke ci gën a ndawee xam ne moo ci gën a néew doole biñu demee ba am ay ci biir li ñuy wax nii pour ñu a fay complété ko ak diwam waaw délégation de nangu nañ ko léegi fépp foo xam ne dafay wax waxiwu fi turu rasiyaat ma jàpp ne Sonacos bu fekkee ne Sénégal dafa maanaam président de la république sa laay wax ndax moo yilif Sonacos moo ñu yilif bu jàppee ne Sénégal nii lay doxe bëgg na am am am am njariñ maanaam maanaam ñu am solution ci filière d'arachide bi comme ni nga ko waxee ci prénance bi jàpp su fekkee ne loolu la bëgg faaw mu wax ak waa rasiyaat parce que rasiyaat dong moo am solution dama la ñun pare nañ fi ne 5000 5 millions 5 millions de litres 2000 mën nañ ko ko jox par mois te li ma ko wax bu bu bu laajee Sonacos dana ko sévère loolu mën naa nekk parce que ñun li ñu doon jox ci gerte dama ne la 15 jours yu ci ne 7 jours lañ ci liggéey te 7 jours yooyu liggéey bis bi demi demi journée la liggéey parce que kenn liggéeyu ci guddi ñun néew ñoo ci doon mën a liggéey lu guddi 15 jours yu ci ne 7 jours yi nga am gerte yi ci toog di xaar gerte parce que ñëpp mënuñu na ci ñoo xam ne nga bëgg koo liggéeyloo kenn ko am 20 tonnes ne ko nag dañuy te it d'abord mooy euh, ñun përiwuñ pour topp ci gannaaw kenn parce que instructeur bu taxawee nit du topp ci ganaaw kenn